mooy gynécologue bi. ñu lay yóbbu ndaw si mu dem ci gynécologue mu def certificat médical ne xool naa ko kii kat yegg nañ ci moom. yow mi seetaan Wilane TV aboneel gaaw te nga activé cloche notification bi mooy tax ngeen mën bi jot sunuy video en temps réel Wilane TV la voix des sages. Euh, bëgg nañ ñëw ci loolu parce que gis nañ ne actualité la. am na sax ñoo xam ne dañuy wax ne euh, coow loolu waruloon jëm kaw ndax nee nañ dafa salte te njaboot yi toog di ko dégg euh, rafetul ci réewu diine débat bu mel noonu ñu koy souligner mu jëm kaw waaye comme xas na jëm kaw ba pare nag euh, nan lañ ko war a seeree ci diine ak ci aada ba nga xam ne daal dina mën a rafet ndax histoire da koy jàpp itam waaw danañ dem ba téeméeri at ci kanam histoire dana jàpp loolu te kenn ku nekk eh, xamoo lan ngay doon ëllëg ak lan nga fi bàyyi euh, donc coow loolu tey ni mu mel nii rajo yu guddeeg bëccëg coow boobu la ñuy wax am aji saar indi sonko am aji saar indi sonko euh, sëriñ bëggoon nañu xam sa xalaat ci loolu ak orientation yi nga xam ne mën nga ko jox nit ñi ci cadre boobu noonu. jazakallahu xayran bu doon wàllu diine la moom rek na bu yàgg du yegg si fi waaw waaye xam naa mbokk tali tali bi moom dinañ ma dóor. ñun dañoo déggul diine boo bëggee dégg dëgg yow la nga jàpp ne moom mooy diine. dama jàpp ne mooy euh, julli mooy woor euh, asaka gi mel noonu ak civilisation nag waaw. gannaaw ba sa xol. waaw ah góore waay loolu mu taxul ñu wax diine ci diine la bokk du xam nga capitalisme. waaw xam nga. beneen bi nu mu tudd bu bu waa Russie. socialisme communisme. ak socialisme ak ñooñu nu ñu leen tuddee les courants. moom mooy courant. ok lislaam lii la ñëw réglé si. lislaam yàlla da koo indi moom tam mu nekk comme ñooñu de. l'islam comme capitalisme ak yooyu la de. système la comme ñoom. règle àddina. tànk nag ñun jullit yi comprendre loolu duñ dem wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow yow Wilane yow en tant que taalibe boo demee ci ci ci njàngale mu Abul Abbas Ahmad Tijani Cheikh Jaan nee na daganul ci sama taalibe wala sama njaboot mu dagg xobu garab te soxlawu ko bu ko daggee ci foofu balaay jéggi siraat dina layoog boromam ndax mu dagg xobu garab bi <laughs> xoolal dem na ba ñuy jàngale ba ñuy laajte diggante saxal garab diggante rey garab ak rey nit bu gën a foor kenn waxul ne nag rey garab a gën a foor bakkan de bakku nit dara gën a ko foor mais dañ la bëgg wax nit doole bi garab am waa ki la fonk loo garab nu mu lay def loo nit xam nga dina la fonk loo nit léegi nag lislaam dañ ko indi yàlla da ko wàcce parce que boobu àddina bi yëpp dafa lëndëm lëndëm jaxasoo yi ngay wax ni bari fi ray gi bari fi jamono li yonent bi sallallahu alayhi wa fekk na fi ci biir araab bi jigéen ñoo xam ne kenn du leen takk dañ leen dugal ci biir ay tànt takkal leen ceinture weñ def ci kat naar jël caabi ji lonk ko ci bunt bi am ku leen dundal ci biir góor gu soxla rek jël caabi ji dugg faj sa aajo génnaat su ëmbee di jigéen wasi mu jigéen ñu gas suul bu dee góor ñu yar neen jigéen amul njëriñ sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw dindi fi loolu mais tey lan la jigéen ñu fayee yonent bi parité ku ko wax ñu mere la te yàlla taxaw ci alquran ci soxna bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am di waxtaan ak mbokk beneen soxna yeneen bi sax ñu ne noonu foog naa umu salama la ak sayyidatuna Aïcha tur bi moom moom laa jàppul ñoom ñaar ñuy waxtaan sëji wuju dugg si ci biir néeg mu ne ko mais ñun xanaa ñun l'islam joxuñu suñu intimité wala ñu ne yéen bokkuñu yàlla ne si ah, pourtant nag am ngeen parité innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitina wal xaanitaati ba fukki mat mu ne fii lii ñëpp yéen a fi tolloo moo tax jigéen ñi jigéen ñi jëkkër jigéen ñi dëkkër të li kii di wax jaaji nee na jigéen 18 ans ba 25 ans am nga am sensu jëkkër 25 ans 30 ans yaa yaa ngi ci cas critique puis plus de 30 ans nag ñaana la dese léegi jigéen ñi ñaan dese gis nga aaya boobu yàlla dafa tagg fukki yu góor tagg fukki yu jigéen gis nga jigéen ñi. Euh, jigéen ñi nga xam ne ñaan ñaan moo leen dese fukki yu góor yooyu lañuy bind di ko sangoo balaa yàgg ñu am boroom kër ku am kenn ci ci biir jikko yooyu innal muslimina wal muminina wal xaanitina wal saabirina ba mu jeex mi ngi ci suratu zaariyaati wala ban saar seet seetal leen ma ko ah seet leen ko gaaw léegi. Euh, loolu islaam ñëw dafa indi système pour régler problème yëpp nag problème yëpp la bëgg régler ku nekk jot sa àq seet yéen a koy seet waa waaw innal muslimina wal muslimaati al ahzab wala azariyaat côté yooyu ngeen koy seet dama ko takkul ndax réew mi dafa garaaw léegi ñu ne xamul dara gaana xaw ma dara moom <laughs> léegi système yooyu ñëw pour régler suñuy problème ci yi ngay wax ci yërmande mais surtout Wilane nga bàyyi ko xel ci injustice gis nga boo seetloo yu bari dafay dellu ci injustice ah axsab waaw ah, kay kon noonu la waaw ah? ah, kay yëpp ngi dellu ci injustice yëpp boo seetloo yu bari ngi dellu ci injustice moo tax mu ne inna allaha yamuru bil adli wal ihsaan yàllaay wax de damay nettali ci alxuraan inna allaha bi la adli wal ihsaan yàlla mu ne soo yam bëggee pénc mi jàpp na ngeen fexe ba am une justice impartiale élément noonu la bu farul fenn comme yaay juriste bi justice boo xam ni kenn la faral muy fan la dëgg nekk xam nga lu tax parce que yàlla nee na li ngeen àtt yépp bu ñëwaatee àllaaxira dinaa àtte ñi ko àtte woon àtte àtte bi. te du bàyyi projet bi laa xaw la amul renvoyé. xam nga ñaar lay àtte. ki àtte àtte bi ak àttewaat àtte bi xaw ma ndax dégg nga li ma wax. Ah mooy tey juge bi àtte. Mm, bu àllaaxira yàlla dina ko woo àtte ko. àtte li mu en tant que jaam. ak yi mu jëf yëpp ci biir carrière am soog a àtte àtte yi ne ko àtte bi jub nam jubul ci foo ko teg. inna allaha yamuru bil adli wal ihsan am na ñu dem ba ne loolu bokk na ci lii sax ci réew mi xam nga mës naa ko wax ci benn conférence dafa am benn direction boo xam ni mag sama benn wëllëre ak ñaar ñaar ñaari wëllëre Cheikh Omar Bakhayoxo ak Mouhamed Lamine Coulibaly dañ fa daan def conférence chaque corps yu ñu fay na xaalis bari ah mais benn année ñoom ñoo tànn tem ne ma ñëwal waxtaane corruption riba ah ma daw thème bi ñu imposé ko ma ne kon acca daw bi mooy dama bëggoon ñu confirmer ko ma ñëw waxtaan ca waaye ba ma yeggee ci ne ki nga xam ne c'est le comptable et matière l'islam mayu ko mu jël benn feuille blanche mayee ko daganul riba la daganul parce que moomul feuille bi xam nga xam nga feuille feuille bi kan moo ko moom 17 millions de de sénégalais yi ñoo bokk benn feuille bi. kon amul c'est pour la fonction charia da koy bañ ma leen big bi muy bindee noonu la waaye ba conférence ba jeexee ma génn Cheikh Omar xam nga bu ne kenn doon woo <laughs> mu ne mais ñun ñoo bi ma ma ne ko mais arrangé wu leen. ndax léeg nit ñi dañ lay woo pour nga waxal leen seen seen soxla te ñun bu ñuy ñëw yàlla la ñuy waxal dañuy jël waxu yàlla teg li des duñ ko toppatoo kon islam dafa ñëw pour régler problème mu société yi mais du problème mu jullit foofu foofu nag lañ ñëpp ñu bari di di juumee parce que l'islam bu ne la justice li sax ci réew mi or bi kam moo ko fa def mës ngaa dégg garabu or xam nga amul. li ñu tuddee minerai kan moo ko def ci suuf si. yàllaa ko fa def zircon gaz kan moo ko fa def yàlla pétrole yàllaa ko fa def mu ne nag comme maa ko fa def pour yéen ne ku nekk jot àqam mais état yaa koy seere lii de lislaam ko lii de lislaam ko jàngale inna allaha yamuru bil adli wal ihsan wa itaa zil qurbe wala wal yataame ayatul quran na de waxuma yonent bi nee na te nag yàlla ci boppam jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàngal mu ne réew mu nekk li ngeen soxla pénc mu nekk li ngeen soxla mi ci biir pénc ma ñu bari duñ làkk seen xel lu tax Sénégal bare garaw baobab muy guy guy kenn lijjantewu ko et pourquoi guy kooku beneen kooku beneen. te am waaye man loolu beneen waxtaan la. garabu guy boo ko xoolee di nga xam ndax nawet bi dina baax du baax mais léegi nit ñi lu ñu xam ci guy fa la jinne yi dëkk. xam nga daqaar mooy moo dama jàpp xëxaaru daqaar mooy xëxaaru tur yàlla la daqaar ah? moo tax di di di jàmba daqaar di ko naan amul suukar day tax ku la jox tooke du lu jàpp kooku bokk ci jumlatul ixtiraat na ma kër gi baal <laughs> léegi ñi ngi woon ci wàllu réew mi ci Covid 19 yooyu foofu la woon de. waaw kay bu doon l'islam le problème il est réglé affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak yéen i mel problème bi réglé na mooy yàlla dafa ne tànk amu leen ñeenti seede. yu xamantewul bokkuñu fi ñu jóge ñépp ñëwandoo ci même béréb bi fekk awra euh, sàkkara waaj ci biir awra ndaw si mu ne bu kenn waxul na njaaloo amul de bu ci kenn bu kenn génn ne gis naa ko njaaloo nañ def nànk ci biir àtte yi waxuñu ne njaaloo amul dafa ne amul leen droit génn ne njaaloo amul te ma wax leen nga takk ko mm-hmm. takkal lii ma lay wax képp ku tuumaal gor képp ku tuumaal gor balaa ngaa dee tuuma boobu di ko def. dina hmm. man da koy def yàlla bëggul ku tuumaal gor te gis nga wilaan na nit ñi fonk julli tàkkusaan te bàyyi jigéen yi ñuy tuumaal njaaloo gis nga jigéen boo ko tuumaalee njaaloo waxtu woowu lépp loo jaamoon yàlla dañ koy effacer mu nekk zéro musul nit ki musul musul jaamu yàlla. bu dee julli tàkkusaan boo tayee yéex a julli dañuy effacer sa ardoise en tant que musulman zéro yëf yi yëf yombul de moo tax li tey bu doon lislaam ca njëlbéen nga lañ koy réglé kan moo ko fekkee ñu génn ci loolu am na nag léegi la tuddee justice on fait confiance à la justice. justice moom xamul loolu xamul condition yooyu. waaw on la justice mais le problème ce n'est pas la justice c'est les hommes. qui font la problème am déet ok léegi justice moom dafa ne pour ñu ne viol am na day am preuve non preuve bi nu ñu koy xamee mooy gynécologue bi dañ lay yóbbu ndaw si mu dem ci gynécologue mu def certificat médical ne xool naa ko kii kat yegg nañ ci moom jàpp waa ji sujet tëj tëj ci kaso bi ñëpp d'accord parce que jigéen la dañ ko war a protéger waaw léegi gynécologue boobu nee na moom bës boobu dara xewu fa te ndaw si lu ko jiitu séqula kenn dara waaw léegi ñii moom ku ñëpp. te léegi projet bi continuer am. waaw te léegi lii boo ko waxee ñu attaqué la jaaduwul nekkuñu rek dëgg ak lu nit mën ci wax lii moom ñëpp dégg nañ ko gynécologue bi ñëpp dégg nañ ko. te lii la war a yem. ma ni gynécologue bi ñëpp dégg nañ ñu ngi koy harcelé ba daw na ñibbi seen dëkk. ah loolaa dégg ci man damay déglu média yi de xaw ma ndax dégg la mais daal man dégg naa ko mu wax ne ñu ngi koy harcelé ba teg ay audio wu kilifa ku mu enregistré mu doon wax ak moom. mu ne waxul sax bés boobu mais même fan yi ko jiitu jotewul ak waa ci dara loolu gynéco bi moo ko wax ñun man man mosumaa gis Adji Sarr xaw ma ko. gis nga Ousmane Sonko mii maag ñëpp ci yem yaakaar naa. tele bi la tele bi laa koy gise tele bii laa gisee Ousmane Sonko mais nag am na lu ñu nangu gis nga réew mii. ñun duñ fi nekk taalibe juddoo fi màggee fi di bay nit di ko yàq mukk kooku moom duñ ci xaar sëriñ bi de am na loo xam ni du cëru sëriñ bi. suñu cër li ci sariya bi li wax rek tax débat mais réew mi du du réewu sariya du réewu sariya réewu loi la te l'islam d'accord na ci ci bi hmm. ah ñeent ñee moom mooy gynécologue bi. ñeent ñële ñooy gynécologue bi gynécologue bi nag léegi moo war a diggante mag yàlla gis nga gynécologue bi bu ne njaaloo am na te amul moom la ñuy war a duma tëj ko ci kaso bi. kon moom kon moom loolu muy gis day taxaw taxawaayu ñeent ñi. waaw waaw science la xoolal demal ci yoon ci yàlla Muuse feebar na yoon ci yàlla Muuse feebar na bi mu feebaree ñaan yàlla yàlla ne ko garab sàngam moo lay faj ñëw maa tudd garab gi ci média ndax garab googu boo koy sangoo da nga am wërsëg ku téye ah yow tamit njabootu Maodo njabootu Maodo du weer lu ne. léegi bi mu demee jël garab gi naan ko wérul. yonent yàlla Moussa alayhi salaam laa wax. moo ñaan yàlla ne ko feebar bi sonn naa ci faj ma yàlla wan ko ne ko garab gi nga naan ko mu dem xooj ko naan wérul. te yàlla ko joxoon garab. moo ko wan. mais garab boobu nag boo ko sangoo du laal sa bopp de ci mbagg lay commencé wàcc. <laughs> mu xooj ko naan wérul mu sikki sàkk bi muy dem garab gi woo ko ci boppam ne ko Moussa man na la yàlla wax xooj ma naan yonent yàlla Moussa xooj ko naan ko mu ne waa lii nu man nekke mu ne ko demal ci diw Michel Ba mais Michel Ba mooy médecin wu dëkk bi ne ko dangaa feebar bëgg faju est-ce que foofu mënuñu ci jàpp ba tey ne yi ñuy xeeb tey diw tur yàlla kenn du ñaan digal nangam nangam est-ce que dugg ci yow li ngay dugg nii ay émission la lay nekk bu nekk domaine la tur yàlla domaine la tur yàlla mën nañ ci def fukki émission mag yow wala at wala ñu ci wax at lu ñu wax duñ ko waxaat ci barke Cheikh Seydil Hadji Malick domaine la ñaan domaine la science domaine la wala xad yasanal qur'ana li dhikri fa hal min mudakkir alxuraan yëpp xam-xam la alif rek xam-xam la gis nga diggante aaya yi aaya yi diggante bi espace balance boobu. xam-xam na ku ne dara nekku fa juum nga. lën na yaa n'existe pas wala <laughs> waaw loolu science léegi bi mu demee ci médecin ba. bi mu demee ci médecin ba. médecin bi ne ko eh, dem jël même garab gi. muy waaw non moo ko jëli boppam. musaa xool ko yont yàlla te kat yonent la de yonent yàlla Moussa xool ko ne nag nekk naan di teg te tey baax mu jël garab gi raxas ba mu set defar defar defar ci éprouvette natt sotti ne ko am naanam Moussa woon doos bi xaw woon doos bi mu naan ko wér boobu la yàlla samp médecin parce que yàlla xamoon na ne pénc mi bu amul lii àddina tukki waaw kon médecin moom mooy gynécologue bi mu ne diggante bii ngeen may wax de muy tey ci bés bi mu xew ak li ko jiitu ndaw si jote ndaw si jote wu fa kenn te yàlla yit dogal na gaaraasam bi musul tëju yàgg na ba bu buntu gaaraas bi dajee ko yàgg na mais loolu beneen débat la vie privée ndaw si la suñu yoon nekku ci mais dañuy jàngale lii su ne ko bi wax ko bind ko man sax waxuma ma li lu wax mu mënoon na fa yem jeex kon bu continuer léegi lan la man dama jàpp ne ñi war président ma Sall àll bëggunu ko te maa ngi ñaan yàlla lii yàlla ci jot ñi ko war bëggunu ko képp ku koy téye ci pouvoir bi bëggu ko. duñ ko dugal ci déedéet xam nga ma wax ko. ñi ngi yàq loo xam ne ci pénc mi lu dangereux la gis nga institution kenn du ko fooy Wilane fi mu ne nii ku nekk ñeme nga nekk président Sénégal loolu njëkk garaaw te président kenn waru ko du ñëpp ko war a ñeme nekk lu ñu war a xoolaat la beneen bi ñi ngi sa ñi ngi tax nit ñi bëgg sàgganal gendarmerie te 2011 2012 mës naa wax ci rajo ma leen ma ne leen attaque yii ma gis confrontation yi ma gis diggante policiers yeeg xale yi wóoluwuma ko homme de tenue population waru ko ñeme am na fi jamono jamono su benn gendarme taxawee gendarmerie LG mbaaw génn nañu temps grève ndax man ci grève yi ci laa bokkoon <laughs> bu bu LG yi mbaaw génnaan ñëpp ñibbi kenn du yëngu na ñëpp dégg rek LG yi mbaaw génn na ñëpp ñibbi mais ñi ngi commencé yeblu suñu om de tenue yi te loolu c'est pas normal parce que c'est c'est des nobles kon institution ba boobu ñi ngi koy commencé fragiliser lu bari lu lu lu nëbbatu woon mi ngi feeñ sénégalais yi jeunes yi ni ñuy ñemee état ni ñuy ñemee homme de tenue jaaduwul beneen bi la parole du président de la république elle est sacrée entre guillemets président mu taxaw ba wax kooku kooku kooku kooku leneen la bu ne damay dem na dem bu ne damay toog na toog war a am président du ko tuuti ah du ko tuuti moo tax man lu mënti xew du ma nangu ko koy sàllalu parce que lu euh, njiitu réew cër wu rëy la kon loolu war nañ fexe ba buñ ko fragiliser tey ku mu neex na dangaa bëgg nekk président loolu fu ñu ko teg lu nekk léegi di jàpp nga ne man war naa nekk président parce que li fi nekk la ñu xeeb bëgg ko def fowukaay wala bëgg ko nekk def def noosukaay kon tey parole président de la république c'est important mais képp ku ko wër danga ko war a jàppale mu am une sorti honorable président Macky Sall une sortie honorable la moo ko war. te loolu ñu ko wër ñoo ko ci war a mën a jàppale. ñëpp ci war a jàpp mais ki ci njëkk. te di ko dëgëral mooy ñi ko wër ak kilifa diine yi ñoo ko ci war a jàppale parce que dem yombul dem yombul ndax nag nit tamit opposition bi dañoo war a gën dal tuuti nit ki doo yootu dara tey tëkkuwaate du dala xel xeexal nag li nga war a xeex mais xeex ko ak xel mais tëkkuwaate bi nañ ko bàyyi ndax boo ne njiit gi bu ma toogee dinaa tëj ci kaso bi yàgg sa njaboot demam dootul yomb kuy wax na waxal yàlla waqul jaa al xaq wa zaqa al baatilu inna al baatila kaana zahuqan gis nga fii wilaan yàlla rekk fii sax yàlla dong dong ngëm kook ñàkk ko gëm a ci yam yàlla dong nga fii sax ñu ñëpp danañ faatu te ku nekk di nga ñege naayoo say loxo ku nekk di nga répondre tes actes devant Dieu pas devant nit ñi te li nga wax sànq lu am solo la histoire mi ngi fi nettali am na gis nga Ousmane ko mii à vie lii du denc daram xanaa ñu ñu ne ko defoo dara te loolu justice moo ko mën a def justice moo mën a taxaw. ne ah ñun kat lii ñu dajale ba dajale ko gis nañ ne kii kat deful dara ñoom ñaar nag lañu séq ñun ñoo leeg ñun lu suñu yoon mais lii ñu indi ci penc mi ne moom bu nga xasee ba indi ci penc mi ñëpp war nañ cee wax mooy ñi ñu fi nekkal muy ko bi nee na deful dara waaye léegi bu justice ne def na dara luñ ci man te fan yee am na benn waaye xaw ma lu mu tudd eh, ci borom tiktok yi la bokk de ku siiw la. alpulaar la sax xaw ma lan fon. waaw kay waay guddal fan Kalifon. xam nga tuumaal nañ ko fi. ñu porté plainte. mais pourtant ndaw si dañ ko yóbbu ci gynéco. ko bi nee na attention de ñaar ñi jaxasoo woon de waaye nag dóor na ko. ñu tëj ko pour coups et mais kenn tëju ko pour viol. waaw léegi yow nga defal ko kii mënoo ko defal ki loolu léegi lu muy niru. man sama wax ji rek fi mu ne wax ji ma wax a yow nii xam nga mën nañu ma cee tëj kaso bu leen neexee ñoom. déet mën na ñëw rek ne outrage à magistrat dugal foofu la réew mi toll fi mu ne fi nii mën nañ ñëw rek ne ma acakaay lu ma ci man lu topp ca rek xanaa waa waa waa daayira bàyyi jooy ba sonn rek <laughs> te fekk li may wax ni kenn mënu ko dindi mooy maanaam li may wax moom la ñëpp di wax ñeme ko ci kaw rek moo fi nekk ak mais ñëpp nga wax ci kaw sax lii nëbbuwul donc li ñu eh, ki ñu war a waxal mooy njiitu réew mi du Ousmane Sonko de Ousmane Sonko li ñu ko war a wax mooy mu dal. te bañ di tëkkuwaat comme waaw nag dal te bàyyi tëkku ki moom je di dis dama ko ko ñaan tëkku baaxul na demee it xel. dëgg la nag bàyyi bu sax dafa mës a wax benn wax bu am solo mu ne boo fekkee ku ñuy dóor bul wax kii yuuxu bàyyi lu yuuxu yi da ngay wax kii dóor bàyyi dóore yi waaye nag mën ngaa wax kii yuuxu may ma tuuti ma wax ak kii doole kon na dal na bàyyi tëkku am na loo xam ni ku ko ku ko ku ko nizar bëgg ko jël dangay ngay ñemeloo nit ñi tëf tëf tëf tëf tëf yoru réew yoru réew de gis nga tëf tëf tëf bii wallaay gis nga l'état si autre chose yombewul ni ko nit ñi yaakaare am na réalité yoo xam ni tant que duggoo ci biir doo ko xam état lu compliqué la mais it lu yomb la li ci des nag moo ñu ñaan président de la république ni mu ne moo ko wax de man ne wax waxaluma ko lu mu waxul moo ne wax ne am na dossier yoo xam ne bu egsee ba ci mante mën a taal réew dama ci teg sama conc benn occasion ngi nii nag te ala kulli xaal Ousmane Sonko sénégalais lay doon ba àddina tukki président sénégalais lay doon ba àddina tukki te magam la mos lay mos lay doon ba àddina tukki Macky Sall président Macky Sall magu Ousmane Sonko lay doon ba àdduna tukki ñoo xam na ku nekk nooy def mais lii président Macky Sall rek mën na ko régler sans intervention wu sëriñ si mooy mu woote ne arrêté leen lii affaire de mœurs la médecin bi nee na nañ ko arrêté day arrêté mais man damaa gëm ne lii bu continuer xëy na moom la neex xëy na pour bañ a xëy na moom la neex mais su bëggee mu arrêté mën na ko arrêté bu ko arrêté wul ñii ñu am ñëpp ñu njaboote ñëpp ñu ne ko arrêté lii parce que attention de fii ñu jëm du sedd ci kenn